alhamdulilah alkarimi fi lminan ala fiqaali bi forojin wa sunan alhamdulilah alkarimi fi lminan ala fiqaali bi forojin wa sunan shakartu li annahu qad saaqani li watanin bihi nafa maaqani wa qaadani ilayhi bitaxani من بعد ما هذب بالتخليد وجرني فيه إلى العلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم صلاة بسلام تبعا على الذي قد أن أتبعا على الذي من بمرادي اقتدى في السر والجريد يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فساد دينا وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير ولا شفيع وآله وسابه النجوم القائل النفوس والرجيم هذا وإن اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وأن تكرك لا أريم منجذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مقبدا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد زدت لما لم أجد سرواك فجدتني اليوم بغير منني وقدني إلى اقتفاء سنني من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في سلك القناس وكد للأمداح والإقراء أزد بالتاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي التقال بهدى المعلوم فقلت ذا سكر وذا توسل بالمتابعة في عين الرسل وببنيك وبناتي معا ليتبعا في سريعا أجمعا يا بر يا غفار يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمن أوايا قليلا منامي يا خالق يا كامل صفاتي لك استكيت قدرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أرام اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك ركونا وأن ودعاك بناجي المتبى سنتي البيباء يا من اتبى يا غادر ذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mboolem mbokki jullit yépp di leen ndokkeel ci saxru ramadan gi nga xam ne moom la lislaam yëpp bokk di fàttaliku bu baax a baax bis bi ak ni mu ñore woon boroom muy soxna si te li ko ci gënoon a ñor muy liggéeyal sëñ Tuubaa gi rek li ko ci gënoon a ñor mooy njabootu sëñ Tuubaa gi fi daan dajee ci teewam ñi mbokkal sëñ bi ak ñim jur ñépp ak taalibi sëñ Tuubaa yëpp loolu kon di loo ne moo jëmmal bis bi li ko lal nag ku ne xam na ne mooy ak cofeel gu mu am ci sëñ bi rek moo sàkk bis bi di ko ci liggéeyal yàlla defit euh, koor doon loo xam ne tereet la boo xam ne topp yàlla gu ne baax na waxtu ne waaye nag euh, ab ab ab ab euh, weeru Ramadan da ci da ci loo xam ne yombut ndax lenn loo ci def dañ la koy fulal ay yoon yoon yoon lu baax loo ci def rek dañ la koy fulal ay yoon kon wa weer la woo xam ne dafa bokk ci ndimbali sëñ bi ci noonu fàttali bis bii nga xam soxna si jëmbal na ko ci ba tax ñun ñëpp kenn ku ci ne bu weer wu duggee sa nekk ci eh, bis bi sa xel ne ci weer wi ngir nga bëgg cee liggéeyal yàlla ci dara ci fa sa kon ñi ngi leen ci ndokkeel di leen ci sargal ndax sëñ Tuubaa moom moo nunguwul daray lu baax loo xam ne dana romb waa këram te duñ ko jëriñoo waaw moo ñu waral nag bis bii ni ñu ko fi defe ak ni ñu ko fi jëmmale ndax loolu da koy fàttali ku ne amaana buñ ko doon jëmbale jëmbale nii ni ni ni ni ni ni muy ni ko ni ko nit ñi xamee nii ak di ko nii dunde ak di ko ni dundale duñ ci mën a àgg foofu te nag sëñ bi nanguwul lu tal ne lé yiw ci weeru koor yiw wu ne ci laylatul xadar dañu romb rek di jàll kon ñu ngi ci ñu ngi sant sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax a baax di leen xamal ne rek Euh, bis la boo xam ne euh, genn guddi goo xam ne moo gën junniy weer loolu lu rëy rëy la ci lislaam laylatul qadri xayru min alfi shahr weeru koor it doon loo xam ne li alquran di bari bari wenn weer woowu la ci yàlla tudd sahru ramadan allati unsila fi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda wal furqan waaye weneen weer woox xam ne yàlla jaar na ci saw tur wur weeru koor amut kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax jàngal nañu ne benn farata boo ci def dañ la ko fay juróom-ñaari farata juróom-ñaar fukk juróom-ñaar fukki farata loo ci def mu tollook mel ne na nga xam bu doon layan dag naan lii du la ma war naafila la maanaam jëf ju baax rek la boo ko defee day mel ne def nga farata kon loolu li ma doon wax wax occasion la boo xam ne euh, ku ne ku ne ku ne ku ne mën na cee duy li nga bëgg a duy kon nag yàlla nu ci yàlla dimbale ñu ngi leen di sant nag ndax ni ngeen ko ni ko soxna si doon defee rek yéen a ngi koy wéyal waaw te loolu rek la ci bëggoon bëggoon bis bi ni mu ko doon liggéeyal di ci liggéeyal yàlla di ci dàkk ngërëmul sëñ bi loolu man a sax te loolu nag yéen a koy jëmmal kon nag yàlla neen ci yàlla gën a jàppale wa kullu haamin wa antum xayrin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala man abad wajalilaayi makani tuuba abadu mislat miya bi jaayi xayri man abadu wasalliyan alayhi afdal salaat wa aalihi wa sahbihi dawi silaat wa kullu man qadamani aw zaara fa najjihi wa fi law aw zaara wa kullu man ahabbani aw maala ilayya badd quudan wa maala wa kullu man sadamani aw laama fa hab lahu tawbata wa istislaama wa kullu man adaa adan biya فليقلم قلبه يا ربي ودفني أذى جميع العالمين واجد بهم أدايا يا ربي أمين وجنبنا يا بنا عافية